tey dañoo xëy dégg ci rajo bi affaire wu benn mutuelle wu ancien lutteur. Mm-hmm. ñu ne dañ lekk seen xaalis. Mm-hmm. yow sa tur tudd nañ ko ci. Mm-hmm. ñu bëggoon xam histoire bi nan la demee. waaw histoire bi ni mu demee histoire bu xaw na yàgg tuuti parce que avant 2006 la parce que association des anciens lutteurs. Euh, loolu xam naa dinañ ci dellusiwaat waxtaan fi mu commencé parce que association ñom Moussa Gueye bi commencé def organiser dañuy euh, organiser association des lutteurs professionnels. Mhm. Amadou Kati Diop ne comme ma Kati mais tam manga de mhm. de la mhm. ñu né légui kon Kati Kati de association des anciens lutteurs ma ko loolu de xalaat la. Mhm. mais comme booba maa ngi Sonatel man tamit mané eh, bon ma ne ko wooteel ñu woté def assemblée générale def assemblée générale bu xumb anciens lutteurs yëpp ñu dajé sànc ba Manga de ñëwagul ci ñëw bokku ci tuba bu jor bokku ci de nga booba dal ay morfaram bokku ci ñoom moo daal di ñoo xam mbër yu bari yo xamné ne bokku ñoon ci affaire bi. et légui na bi ñu ne nañ taxawal lolu ñu dal ci def na khalat bu rafet né légui comme bari légui bobu amna am yu mag yo xamné ne ñu nañu bëre dañoo néew doole fii mu ne te it booba euh, mënuñoo yalwaani mënuñoo sàcc mënuñoo tiraani parce que bëri ñu def seen carrière ba carrière bi jeex dégg li ma la ah te réalisé wuñu wax dëgg yàlla amuñu ku leen jàppale ñu ne bu ñu formé association boobu di codiser bu ñu amee ba am lu ñu tëggee làmb ñuy tëgg ay làmb bi ñuy tëggee ay làmb nag làmb yooyu ñuy tëgg nag ci la moom la buñ ci amee dara di ci dimbali ñi nga xam ne feebar nañu ak ñi néew doole ak ñi nga xam ne ay ancien lutteur nañu te te seen doole demeetu noonu ñu di dim loolu moo doon bitu dégg association des anciens lutteurs mm-hmm. bi ñu ko waxee man la woon Doudou Baka Sarr Boy Bambara euh, Doudou Baka yàlla na ko yàlla yërëm ak booy Bambara ak Riis Niang mhm. ñu taxawal affaire boobu di dem nag léegi nag su ko defee man nag ma doon seeti gars yi ci laa dem Mbaye Guèye këram ma fekk ci kaw terrasse ba mu toog ma ne ko Mbaye dañuy former association des anciens lutteurs keroog dafa ma ne du ma bokk mhm. comme li ma maa nga tonton mu ne ma gars yi dañu ma ciy siis ak ma ne ko Mbaye bëri dóor kenn que yow ci bopp nekk koo xam ne kii làmb tey foo teg ñu tudd la amul fenn fu ñu la war a jariñ ba say sëti sëtaat mm. koo ne man maam ma mbay gay sama maam sax daf la am la parce que am nga ci Sénégal loo am la may am ko ci mm. la yàlla àggale la te loolu daf lay topp kon bul bàyyi mu laa waxee ñoom ba mu bokk ci maa nga déyit maa dem këram keroog am na sa ancien lutteur yoo xam ne dañ demoon ba mu ci bokk may leen bu leen ko wax

dégg nga fu ñu dem dañu fa tudd sa tur te foo fu ñu dem am nga fa place ñun ñii fu ñu toog rek Manga du am na fa place kon nañ ko fa yóbbu nii la demee ñu jël ko mu daal ne mu daal yëkkati douze mu ne ñaata ngeen di cotiser ma ne ko mille francs par mois mu yëkkati douze mille jox muy un an parce que li naa def assemblée générale fal bureau bi nag dégg man maay trésorier bi maam Gorgui Ndiaye moo doon président bi ñu am yaakaar ci Manga 2 xëy na yaakaar ne xëy na bu remplacé bu ko remplacé affaire bi dana gën a dox. ñu daal di koy dal ñu def assemblée générale dem këram maanaam moom ak Jacques Guèye ak ak ñoom Doudou Bakassar ndem si yàlla si gars yëpp jàpp ci ñu dem fal ko président moo loolu la ko remplacé bi mu ko remplacé ñu di doxal di doxal di doxal la ku am problème ñu jël ci kees gi jëmale parce que ñaari signature compte bi maa ngi ko boon Unacois boobu parce que Unacois ñoo dend mhm. mook sama kër sorewul matul cinquante mètres wala ci la yem ñu dem comme jigéen te agio yi bariwuloon te ñun comme amuñu xaalis banque buy jël agio jiguñu mhm, mhm. ñu ne kon léegi nañ seet banque boo xam ne bii am na ñu daal di may te xaalis bi ma loo lu ñu cotiser par euh, réunion chaque le cinq dañuy daje lu ñu daje ma foofu ñëw jox par fooy versement bi jox maa nga mu garde et puis léegi ma ne ko kees gi temps ngi ci ñuy xam ñu xam code bi fi ne ku am ngénte maanaam ku am euh, feebar ñu jàppale la ku ci am tiis ñu ànd ak yow yéen du euh, si tafa coor moo ci jëkk am problème dégg nga euh, borom jabaram moo gaañ woon xamuñu dégg fi grave keroog ñu jël ci daal dañ jël jël ko ci noonu lañ dem di dem di dem di dem ba xaalis bi commencé avancé ba ñu dem ay 2 millions yoo xam ne manqué ne tuuti daal. boo ngeen ñëwoon kër ga sax dama leen génne carnet bi wan leen ngeen foto ko. parce que dossier yëpp nga fa mhm. dossier maanaam li nga la ma yoroon lépp lépp mu nga kër ga toog bu fekkoon sama kër ngeen ma fekk nii damay génn yëpp tegal leen ko nii ngeen xool lépp mu leer nañ ak association bi ñen ñoo ci bokkoon ak liste baak ñëpp dinaa la ko génneel mhm. na ngeen ma gën a filmé génn site bi xool ko ñi xamul ñëpp xam nii nii la def réalité bi nii la ci loolu lañ demee ñu dema dema dem bu xant bi benn jour ma xëy rek gis foofu bari pare ñu ne banque bi dafa am problème ma ne problème ñu ne ah ma daal di foofu fees dal fekk dañu tabaski des na 10 jours xaw yooyu ñu ne laa doon woo Manga de ko en mu ñëw ne ko kaay nga ñëw mu ñëw ma ne ko ah, nañ dem ci bokkum ñu dem ci bokkum ñu ne ah banque bi dafa am fayit dafa am problème dañu am problème nangam nangam parce que jamono yooyu li ñu doon naxe machine yi dafa panne soo bëggee tiire ñu xaaral ba suba ndekkee ñu ngi xaar récolter feneen pour joxe kii bu ñu jëlee kii jox kii Mm. man daal leen porte plainte ci tàng-tàng bi ñu jël leen yóbbu leen police te euh, kii bi gérant bi bokkum la woon ak benn xale bu jigéen bu tudd Rama ak keneen ku tudd Rose xaw ma daal ñu jël leen ñëpp yóbbu ñenn ñi bi ñu demee defee jot nañu yóbbu foofu téye leen trois jours waaye fa ñu defeere leen bi ñu leen defeeree ñu nekk fa di fa daw ndeket banque affaire bi toj na ndekete banque bi ay junniy junniy nit ñoo fa amee xaalis ku nekk ñëw na sama kër bu doon dama lay kayit ay deux ni mille ay 5 millions ni ay amna pas bo 21 millions lañ ko yoral amna maire bo xam bi dañu ñew maire bi mo ci boppam bi xaalisam bi mu ñew seen kër lañ jaay ñu ko jaay kër gi mu jël bi denc ko pour jëndal doom kër xaalis ba nga ci toll tu na mayga boo xam ay mayga lañu ay jaay la tuddu ngi bolom boulanger boobu nga fa ak 10 millions ak ñeneen ak ñeneen bari na bu ñu defoon communiqué tey ji woo ne inaa quoi ameel foofu inaa quoi 14 bi inaa quoi jàppoo inaa inaa jàppoo ñu def communiqué na foofu tey foofu kenn du fa xaj mhm. parce que ñoom ñëpp ñu ngi dégaale seen i carnet ba nag man nag li mbër yi li ñu fa amee rek ay 2 millions yu manqué tuuti la ak xaalis bi nga xamee ne bii man maa ko moom nag bu ñu wetee lépp daal dem na 5 millions yu tegal eh, ma dem abou de jugé dem tas affaire bi monde wépp seetaan ko ñu dem mujj gi dem mujj affaire bi mujjul fenn ma jóge fi dem tës bu Alhamdulilah dem mujjul mujjul fenn ma jóge fa gis nga tey toog naa depuis 2002 ba léegi te àllu jàmbur la dénk nañ ma ko dégg nga li ma la ak li nga xam ne maa ko moom eh, xaw ma fu ma jëm xool naa jëm ñëpp daw nañu ba bëgg a fu ñu dem du mujj fen dem naa ba menacé nañ ma sax ne ma ah bul ma tudd benn nit bu yoroon affaire bi. kilifa la mais bi ma ñëwee ne ah dañu ko yoroon dossier ma ne diw moo ko yoroon ñu ne ma diw moomu ah ma ba ma ko déggee daf maa woo fii la ma woo ne ma 25 appel woo nañ ma woo nañ ma ah lu tax nga ah, naa yaakaar naa comme la kooku benn nit la boo xam ne kilifa la parce que su ma waxee turam tamit wax dëgg yàlla man na maa denc ñu jël benn avocat boo xam ne bi ñun waa nag comme yëpp ñoo dem ci moom kenn ku ne ko joxe 10 000 francs ci kii bi nekk ñu ñëw dajale ñun ñëpp dem seeti ko moo ñuy paree de bi depuis 2006 ba ndëgëni amuñu benn satisfaction ci satisfaction. suite suite ba ndëgëni ba mujj il Bon, a affaire bokk ma ñëw ne ko je ma dafa am dama ma ko hmm. hmm. tudd. da nga dit cabine nangam tudd ne xaw ma cabine 3 moo dossier 3 dossier mais parce que moom ah diwoo yoroon dossier bi defe naa gannaaw mu ne ma non wax na dëgg waroo tudd turam. loolu ma métti bu comme loxo mm-hmm. ma loolu ma jàpp njàmbur parce que boo néewee doole tamit yan caxaat yi da ngay moytu yenn euh, que dëkk bi tey ba tey des euh, jaay jàmbur ba pare tabax say kër yor say oto di dawal ñu di la romb te mënoo ci dara léegi mënoo ci dara loolu métti na. Mm-hmm. xaalis boo fa tën mooy xaalis yu bëri la bokkul nag ak xaalis bi nga xam ne moom lañu wax Wade joxoon. waaw dinañ ñëw ci foofu noonu. waaw dinañ ci ñëw léegi léegi léegi euh, 2 millions yooyu noonu ba ba mu euh, ba ba ngeen ko ñàkkee noonu. waaw yow nga nekk trésorier. Euh, mbër yi ñoom nan lañ réagir est-ce que dañ la dañ la accuser wala amoon na problème seen biir wala. waaw non amul benn problème ci biir parce que ñoom dañ maa xam parce que la tax ñu insister xaalis bi kenn ku du ko yor ku bi dul Birahim Ndiaye mi ko yor xam maa tax. bu ñu xamoon ci man njublang wala jubadi kon dañ may attaqué taxaw ne suñu xaalis nangam ak nangam mais kenn mos ja taxaw ne waxa man bu dul assurance Diop assurance Diop nag bokk ci woon bi ñuy takk bi ñuy takk bi ñuy taxawal association des anciens de nekku fi sax fekkee wu ko sax mm. fekkee wu ko liste ba kay boo ñëwee sama kër dama lay génneel liste bi membre fondateur yi ñëpp liste bi dama la koy génneel wan la ko nga teg ci site bi nga xool bokk ci woon mm-hmm. booba nekku fi sax xaw ma fu mu ne mais bokkul ci association mm-hmm. xëy na beneen association yu mujj yi xëy na bokk na ci yu mujjee bi mbëri amee association mbëri démb ak ay affaire xëy na loolu mbokk na fa xëy na mbëri euh, association beneen maa nga jiite. Mhm. dégg nga bi ñu amee ay problème ba tàggoo xëy na boobu mën naa mbokk na mais bii nga xam ne moom xaalis bi nii bokk ci te moom moom wax ci làmb ñëw ne ma gars yi nee na yaa seen xaalis da nga da lekk seen xaalis man quoi ah, nañ ñëw ci man man kay sama kër a ngi nii toxuwuma dëkkuma maa ngi Ndakaaru déwuma fenn tukkiwuma déwuma maa ngi fii bu fekkee dama lekk seen xaalis kay waaye ñaari signature di génne xaalis maa nga day signé ma signé xaalis di génn nan laa mën a lekkee xaalis mhm. loolu yenuwul maanaam kooku sax xam na yenuwul maanaam ah, kon kay fu ñu ma jàppee jàpp maa nga mhm. te maa nga xam na ma xam na ma bu baax a baax moom ba affaire problème bi rek laa ko woo ci banque bi ñu ànd dem mhm. banque ba nag booba léegi ñu ngi ciy daw daw ba nëgëni amuñu ci benn certificat benn kii solution ba nëgëni